خرجت يوم شبتي ثامن عشر لخدمة المختار في شهر شبر eh, Mbacke Bari day bis béréb boo xam ne day béréb boo am ndax béréb la boo xam ne sëriñ bi dafa waaje liggéey bu rëy bi nga xam ne tey ci pay gu rëy gi ak ngëneel ci wàccaay woowee la amee woon mu di Mbacke Bari nekk béréb boo xam ne nag benn taalibe bu nekk war na ko bàyyi xel ndax lu tax mooy Serigne Touba eh, li mu sañ ci ay dëkk yooyu boppam eh, lu néew la ndax boo nee Daaru Salaam ne Touba yooyu dëkk la yoo xam ne boo demee ci xasidaam googu tudd Duxaawul Kabir day wax ne yàllaa ko jox ndigal ci mu sanc ko waaye sanc ko la ngir jaamu yàlla ndax dëkk la boo xam ne boroomam moo ko tànnal mu ne cosaan yi taxuloon nag mu sanc ko lu mel ni lenn sàmm wala yaxantu wala naa waaye li taxoon mu sanc ko mooy jaamu yàlla bi mu fi nekkee juróom-ñaari at nag ci la jot ndigal war a génn dëkk bii di Tuubal Maxruusa dem nag ca suuf ya nga xam ne ay maamam sancoon nañ ko bu yàgg te moo di Jolof béréb ba ñuy wax Mbakke Baari muy béréb boo xam ne aw kor yi la fa sëriñ bi dem muy suwaalu baychas atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñaar xam ngeen ne juróomi weer euh, manqué ay fan la fa def ndigal li jot mu war a dem ci tukkee bi ba mu fa ñëwee day mel ni benn yoon la fa jóge waat ñëw Touba wala ñëw Mbàkke mooy bi muy jaal si sëriñ Mbusoobe mu génnee àdduna foofee nag la sax dafa def ay xalawaat ak ay daawaat di waajal nag liggéey bu rëy bi nga xam ne mi ngi ko doon waaj euh, sëriñ biit leeral na boppam wax ne dafay fekk sëriñ si fekk fi ceddo yi ak nasaraan bi ca misaal ma sax ci ni ci doon waxtaan Cheikh Abdoul Karim Touré wax na ko nag ceddo yi wala tubaab yi bañ ko lool ñenn ci sëriñ si bañ ko lool ba mujj nee ay gaalam wala ay jibaam fees dell bataaxali nasaraan bi waaye moom muy xaar ndigal lu bàyyi ko ci borom bi subhaanahu wa taala foofa it li tax ñu war bari bar koo bàyyi xel ba muy dem Mbacke Bari moom sëriñ bi xam na ne mi ngi xaar ab natt bu war a ñëw ci kawam te jëmmi liggéey bi bu amutoon njariñ yi fi feeñ feeñ du feeñ ndax ana lam adhab illa li xidmatin xumtu biha wa silaaxuha fi hasa safar faqat damay jóg jëm ci liggéey boo xam ne yéwénug liggéey bi moom mënul am liñ ci wut bëgg ko mënta am lu mooy jëmmi liggéey bi am kon liggéey bi moo waral xéewal gi kon bu liggéey bi amutoon xéewal gi du am foofee nag li ci gën a yéeme mooy day béréb boo xam ne day bérébu euh, assurance boo xam ne Rasulullah sallallahu alayhi ko ko indil sécuriser ko ndax yonent bi alayhi salaatu salaam fekk na ko fa feeñul ko boppam ci ajjuma ji nga xam ne. moo sës ca gaaw ba muy demee di juróom-ñeenti fan yi ci weeru ut war doon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru safar yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko fekkal boppam la ko imshi wala taxshal gharar mën ngaa waaj nag te ñëw dem te bu ragal nag benn lor mu daal di sant yàlla nag sëñ Mouhamad la muy jub addaga ni andi na ko xamitu man yaxsimu nii min ad darar min kulli shaytaanin wa jinnin wa bashar waaye ci biir xasida gi da ciy wax bayit wu daw yaram yaa rabbi kulli wala tuxjil nii dunya wa uxra wa tajaawaz anni kon yàlla nag ma nekkal ci lépp nag te it bul ma gàcceel ndax engagement la bu rëy boo xam ne sëriñ bi daf ko engagé foofu ci Mbacke yi muy foo xam ne fa la sëriñ bi tàggatoo bàyyee njabootam dénk ko borom bi subhaanahu wa taala bàyyee daara ji ak liggéey bi Cheikh Ibrahim waaye mu doon lu yéeme loo xam ne lu daw yaram loo xam ne amatul benn béréb bu mën a nekkati tàggoog njaboot gi bàyyi leen fi wax ne xusuur yi xallat wal ahlu anni tafaaraxat bi maddaxi ladi anhul madihu xasiiru sama kër yi gent na sama njaboot gi tàggoon ak ñoom li ma ko yóbbi mooy kuy liggéey rasulaay foofee ba mu fa jógee di demit ñu bari dañoo jàppoon ne kun jàppala waaye li ñuy wax yombal lu jafe mooy sëñ bi dañuy wax assiru ma al abraari waaye dafa wax ne dal dal alladi qad zanna ni asira xayru lasi yu ki ma jàppee kon jàpp nag mooy koo xam ne dafa umpale ndax man maay ki nga xam ne damaa jóg ngir yombal lu jafe moo tax kon bu mbakki bari amuloon rek béréb yi ci des yëpp du am kon mbakki bari mooy asas bi mooy fondement bi. boobu mbooloo mi macha allah bari gi egg na ci bu ñuy séddale reer waxtu timis la ñuy tàmbali bay julli fajar sëñ bi woon loolu lépp ginnaaw dëgmal nag boroomam subhaanahu wa taala ngir yel ko kon day mel ni béréb la boo xam ne war nañ ko gën a bàyyi xel bu baax a baax. ci di ko di ko di ko di ko di ko dundal ci waxtu saa yu ñëwatee ñu ne bisu fukki fan ci weeru ut ñëw na ci la Serigne Touba génnoon laxasaayu wax ne ko ku ma jarte nag kenn ku dul liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man maay ki jóg ngir liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy béréb boo xam ne it euh, béréb la bu yéeme ndax béréb la bu yéeme mooy mag ñu baax ñu baree bari ci biir yoonu murit jaayante ji woon nañ fa fekk fa Serigne Touba kon tey jii day mel ni ñi jaayante Serigne Touba yàlla may leen tawféex ñu jaayanteeg Serigne Touba kenn ku nekk war na topp sa sa sa trois ci wax ne ah man de Mbàkke Bari la sama maam jaayante woon ak Cheikhul Khadim yonent bi alayhi salaatu jox ko ndigalul mu gañaayu benn murit bu nekk gis tey kene bi ni génne gaala bi foofee ca Mbàkke Bari mu teg ko yenn yi ñu awale ko ca ginnaaw mu takkalu naaru góor woowu tudd awnullaahi loolu day misaal ñu teg ca mbalaanum sooy dégal yi maanaam teg ga dégal yi dafa weex tal moom Cheikhul Khadim mel ni mel mel ni xaalis mu daal di gañaayu gañaayoom gu dëgër googu wane ne demul lu may wuti loo xam ne mënut tam te liggéey bi amul béréb boobee moo di Mbacke Bari kon béréb boo xam ne tey jii dafa bokk ci patrimoine yoon wi murit nekk war ko bàyyi xel maanaam benn murit war a toog ba yàgg nga ne tey jii kat ajjuma la tey jii bi sàngam la maa ngi dem Mbacke Bari siyaare ji ko mooy bis bi sëñ Tuubaa bàyyi ko woon béréb bi sëñ Tuubaa bàyyi ko woon dem liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon taalibe yëpp nañ ko waajal te bàyyi ko xel te fas yéene ko dundal te bàyyi ko xel ci béréb bi du màggal gi rek 10 août waaye waxtu wu ne dañoo war a boole Mbàkke Baari ci programme boobu di ko bàyyi xel bu màggal gi ñëwee ñu waajal ko wax ne fii la sëñ bi déparé feneen fu ñu a jaar ñu jaar fa fu ñu mën a dugg ñu dugg fa ndax trois su sëñ Tuubaa moom tras bi nga xam ne fi la jaar mënee su ko jeexal ba ba ba ba at mi di tukki waaye dafa am ndaw ñu war a ñëw toll ci jamono toll ci ay gëstukat te umpale ko bu baax a baax damay wax ne dañoo tëb waxtu wu ne dañuy tëb li gën a li gën a jege wuti li gën a kawe te li gën a jege moo yanu li gën a kawe ndax mënoo tudd jeewal te tuddoo Mbàkke Bari mënoo tudd ñaari rakkay Ndar te tuddoo Mbàkke Bari mënoo julli géej gi te tuddoo Mbàkke Bari jëmmi mbakki Bari mooy asas bi fa la yëf yi départ fa la sëñ bi jógee ba tale fa njabootam bayi ko ñu bàyyi tool ya ba jàpp ne góob jot na wala ñu war a déqi caddo yi sàmm ko lépp def la xew ñu jël njaboot gi sëf lii ci ay loo bagage yi lii ay loolu ñu def ko ci ay mbaam ak ay fas ñu taal kër ga dur ca mbakki bari sëñ bi gëstuwul xam ne lépp lu ko mooy muy maam Thierno mi fi batale woon waaye xam nga ne gisul njabootam gisul daraam li mu fi bàyyi loolu am googu tumuraanke benn murit bu nekk war nay xalaat loolu di ko barkeelu waaye ñëw fa na ngir wàccu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci imshi ko bëgg assuré am sécurité loolu daf laa war murit bu nekk fi gën a jege te nga man ko dafa teg sa tànk ndax Seexul Xadim tegoon na fa tànkam te du am benn béréb booy teg sa tànk ci béréb boobe te mag boo fu fa woon ca kanam sëriñ Touba wala sëriñ Touba tegoon fa tànkam baa ñu jàng fa alxuraan baa ñu jàng fa xasiida baa ñu sikar fa te mboolem daxawaat yi fi Serigne Touba ñaan yàlla yëpp da koo kon noo la ci bàyyi xel incha allah. لخدمة المختار في شهر شبر